falaa demone ñu jox ma walu jotali gi mo taxé sant na bu baax ma la wax li ah, kon de foofu na ba sën. wax duñ ko na ñag gi sama walu. yow koy jox sa simbi sa verti bi nga mel ko juddu net ma ko dé nga japp li mati. Ayo. yuni yang tadi, di li dapat ya. la. dafa teel. waxuma la man mënuma gis ko mënut gis ku ma ma ah, nga kaw. de. da ngeen di rek père fat ma nga ca kaw. la fi dugal. et avec une femme ah, oh. ne sais non que demal nga xool. sa nag fii sa la que te lu dagg lu ne sais pas même moi je t'aime. <laughs> je t'aime fort Issa. waaw bàyyil sa jooy hmm? ma ko fompal.